waaw euh, tey di 3 euh, mai pendant du 30 mais au 3 juin association managers yi dañu amoon benn projet depuis nag yàgg na bu tuddoon conférence internationale des managers et entrepreneurs culturels ñuy dem di dem di dem ba benn moment ñu gis ne projet bi mun nañ ko gën a jëmmal wala muy nekk juste benn journée de rencontre wala benn semaine wala benn deux jours de travail boo xam ne du ñëw rek nekk nekk panel ci lañ xalaatee ak suñu partenaire yi nga xam ne xam nañ leen un peu partout parce que xamoon nañ leen ci ay liggéey yeneen yu dul yi mais lépp ci domaine du management mais ci yeneen dëkk ay festival yu ñuy tase wala ay rencontre professionnelle bi ci lañ am xalaat ne nañ def semaine bi la dernière fois massa bi passé euh, association ama dañ ko invité woon dafa bokkoon ci euh, organisation yi ñu invité woon biñ fa demee nag yàlla def nag ñu am chance ñu ñëpp ñu mënoon toog waxtaan waxtaan boobu nag moo jur lii mais avant ñuy waxtaan foofu dañu créé woon Ama dafa créé benn groupe whatsapp boo xam ne pratiquement ñi ngeen gis ñëpp dëkk yu bëri tamit dañ fa dajawoon ñun ñëpp ñuy waxtaanee événement bi ci biir waxtaan boobu ci lañ gisoon ne affaire bi jotoon na pour ñu teg ko yàlla may ñu nag chance ñu dem euh, Massa toog foo waxtaanee ko ci lañ ko tënkee fekk boobu association bi jàppoon na dal bi nii ñu jël activité bi nii dugal ko ci biir activité Ama bi loolu moo tax ñu def semaine bi semaine bi nag li ko li ko muum li ko nga xam ne moo mooy fexe ba créer benn réseau professionnel yoo xam ne dañuy mën di liggéey ensemble tout le temps parce que boo xoolee bu baax te loolu constat wu yéen ñi nekk ay nekk homme de média professionnel yëpp am nañ ko boo leen xoolee bu baax même si la dans la sous-région ci suuf festival yi dafa gën di wàññeeku mooy des fois da ngay gis booy organiser difficulté charge yi dafa métti léegi l'événementiel coûte énormément cher da gis jafe-jafe yi dafay bëri te groupe yi africains yi d'habitude amuñu ay groupe yu ndaw groupe yi dañuy bëri yooyu yëpp day nekk ay contraintes yu ñuy dund te ñun les managers ñoo nekk au cœur donc tey boo waxee événement boo waxee artiste boo waxee créateur rek wax manager donc ñun ñu ne ñun ñoo ciy gën a impacté parce que ñun ñoo nekk au cœur ñu ne ñun nan lañuy xool ba gën ko organiser comme ñun ñëpp xam ne artistes yi am nañu ay potentiel Afrique moom artistes am nañu potentiel donc opportunité de marché yi ni ñu koy saisir moo compliqué parce que problème yi dafa bëri mais xoolee baax problème yi ñu am ñun ñëpp bu ñuy waxtaan c'est la même chose booy wax ak ku nekk Guinée li ngay li ngay dégg c'est la même chose booy wax nekk Mali li ngay wax la même chose Cameroun ainsi de suite ay Côte d'Ivoire mais ñëpp donc dañ toog ñu waxtaan mais nag li ci ko rafetal mooy koo ci waxal ci ñoom dañ ngay da ngay dégg da ngay gis di wax li nekk problème ci yow moo nekk problème ci ñoom donc d' accord woon nañ ne ñun ñëpp dañu war a toog waxtaan ñun ñun Sénégal nag ñu oyofal leen ko peut-être Ama aussi moom gëm ko nekk fi di calculer metti woon na trop trop trop trop difficulté yu bëri woon na mais dañ ko gëm ba tey yàlla def ñu def ko donc ñi ngi sant yàlla ci loolu di sant di leen remercier di remercier ñi nga xam ne ñëpp ñëw ñëw ñëw ci activité bi nga xam ne tey lañ ko jeexal liggéey bi tey dañoo dañoo arrêté session de travail tey parce que budget bi dafa metti woon te attan attanuñu ko ko woon parce que dañuy yaakaaroon yëpp jotuñu ko dañuy arrêté travaux général yi tey suba ak gannaaw suba ama am na siège boo xam ne mi ngi nekk Sacré-Cœur 3 nañ ci salle de formation bu mag salle boobu la dem invité leen fa ñoom ñu ñëw ñu yeggali travaux yi foofu ñun ak suñu communauté amee yi comme ça balaa ñuy génn foofu ñoom ñuy ñibbi entre samedi dina fekk liggéey boobu yëpp ñu tënk ko ci ay këyit nga xam ne ñoom bu ñuy dem dañ koy yóbbu wala bu ñu demee pare ñu yóbbante leen ko ñu mën ko partager ak professionnel yi nekk en Afrique daal. waaw ministère moom jàppale nañu je mën naa ne sax moom mooy partenaire bi nga xam ne moo si jàpp dëgg moom moo si jàpp sax moom moo fi nekk amul keneen lu ministère de la culture dem nañ ci ñeneen ñoo xam ne délai bi lañ ñu wax gàtt na ñii ne nañ problème mu budget ñii nee nañ xam nga rek. Ah, excuse yi moom day bëri yooyu moom tàmm nañ ko dégg Sénégal ñun ay professionnels yàgg nañ fii ñun def nañ ay presque vingt sept ans de management xam nañ secteur bi léegi ni muy doxee on va juste eh, se dire que dem nañu amuñu mais je pense que tey wan nañ leen ne leen am am na mais am na njëriñ ñu jàppale ñu parce que ku xool li fi nekkoon diggante si trois jours yi li nga xam ne ñun defuñu lii pour def defuñu ko pour buzz ay waxtaan lañ fi def ay atelier de travail ay xam-xam lañ doon échanger te xam-xamu échange yoo xam ne dëkk ak dëkk ak dëkk la je pense que dafa jar encourager parce que dëkk bi léegi monde bi sax ci boppam moo laaj nit ñi di waxtaan pour xool na la ñuy trouver ay solution mais aussi di proposer état bi loolu lay def ak yeneen dëkk bu donc war na mën a comprendre acteur culturel di dem ba commencé di xalaat ni ñuy waxtaanee suñu biir ministère de la culture daf ñu jàppale benn partenaire aussi lañ fi am boo xam ne daf ñu jàppale financier muy ITTE ñu ngi rafetlu aussi loolu parce que tamit jàpp nañ ne peut-être loolu aussi dina tax déwén bu ko bëggee defaat ñoom ñëpp ñu gis ne ah jar na jàpp incha allah on espère que dañ koy defaat bu baax a baax taxaw nañ ci pour defaat ko bu ñu génnee ci lii nañ def dañ def bilan bi bu ñu paree ci bilan bi ñu lancé waat sànq maa ngi tooñante yi ku nekk di wax man gisuma sama bopp parce que mënuñu xam ñëpp xam Sénégal aussi dafa boo leen xoolee ñi ci def ñun dañu reconnaissant par rapport ak ñi ñuy jàppale. te may remercier di remercier une personne boo xam ne moom moo mobilisé média bi tey man ba ma xamee ba tey lu may def dama koy woo. Euh, média yi nga xam ne ñoom ñoo moom lañ def ci suñu plaquette bi ñooñu ñooy ñi nga xam ne bi Ama commencé ba léegi ñu accompagner accompagner nañ ñu si ay initiative mu nekk rek day ci jëlloo njukkal la gis sax dañuy ñëw say événement wala nga wootee parce que dañuy rek mais da ngay gis ko xam ne dafay ñëw couvrir donc ñu leen xamee du du sax dañu xam ñëpp donc je pense que partenariat bi ñu def tey ak euh, ñu def ko ak buur géwal te damay wax turam directement mu nekk nit koo xam ne nit ku man moo ma bëggal boppam te yàlla tax respecté ma ma bëgg ko aussi parce que man dama bëgg nit ku gëm gëm boppam rek demal boppam man jàpp naa ko te ko bàyyi te gëm naa ne lépp lu ñuy defate avant la ñuy jël teg ko te dinaa ko invité bureau ñu ñëw ñu toog ñu waxtaan ci parce que aussi couverture bi dafa am solo mais nan la def ba ku nekk gis si sa bopp ñu mën a liggéey liggéey bu professionnel lañu bëgg parce que ñun li ñu bëgg mooy professionnaliser secteur bi comme artiste mënul dem ak sans média donc ñun te manager mooy nekk ci diggante bi il faut ñu defar diggante bi juste pour wax leen ne leen ñun dañu respecté média yi bokkoon na ci événement boo xam ne dañ ko pousse le 3 bi dañu waroon def la première fois benn diine diine de gala boo xam pour la première fois ñu primé ay manager mooy managers yi nag ñi nga xam ne nag ñoo wane yoon bi parce que balaa nga wax génération bi da ngay wax métier fi mu jógee ñu génération ñoom Youssou Ndour ñu ñëpp xam nañ leen mais xamuñu ñu leen manager mais ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci milieu bi xam nañ ñu fi def dañ leen war a manager a jox ay prix te loolu dañ ko repousser pour liggéey ci beneen façon boo xam ne ni ñu ko doon def mu simple bi baax dañ koy def mu nekk événement bu rëy comme corridor bi lañ ko bëgg def dañu bëgg incha allah dañ koy song du yàgg dara bu ñu paree lii rek dañuy dem waxtaan nañ ci ak benn télé de la place muy TFM parce TFM moo moom def sport yi moo def yi def na ci lim ci donc ñu dem waxtaan ak ñoom ci nan lañ koy defee mu nekk événement mel ni comme corridor et puis muy am chaque année mais pour wax la ni ñu téye kon kii ci prix yi ñu prévoir dañu prévoir média yi parce que manager yooyu bi ñu fiy nekk dafa woon ay hommes de média ay Aziz Coulibaly ci musique urbaine musique ay rap affaire dans le temps moo fi nekkoon donc ainsi de suite pour bañ wax turu ñëpp ay ay Moïse Ambroise Gomis ñooñu ñëpp danañ jot ay prix te lool la moo tax c'est parce que dañu bàyyi xel presse bi médias yi suñu ay partenaire lañ li ñuy def ñu def ñun ñoo koy defandoo ensemble donc ñun gëm nañ ne partenariat bu win-win la moo tax incha allah bokk na ci li ñu war a defaat xool bëgg nañ sax panel yoo xam ne dañuy ñëw toog ñun ak yéen ñu waxtaan parce am ak aussi tegee sa tànk boo bëggee approché média wala yooyu te yooyu bu ñu yoree ay manager da nga leen di former ci lépp te loolu aussi bokk na ci concept table ñëw juste rek c'est ma manière à fi ay Mali ak ay yeneen dëkk yoo xam ne ñu ngi ko bëggoon jël ba pare ñeme fi dëgër fit ñun ñoo gën a dëgër fit parce que ñëpp ñam nañ ko xalaat nañ ko gis diisaay bi bàyyi ko ñun ne noo dañ koy dem parce que nag la chance que j'avais mooy Ama bëggoon na ko bokkoon na tamit si suñu projet ñoom dañ ko bëggoon mais ñun daf bokkoon suñu projet mais troisième argument bi aussi c'est parce que amoon nañ ay nit de valeur yu nekk suñu accord bëgg si jàpp ba pare ñu am ministère boo xam ne ñun suñu association je le dis haut et ñun dañuy ñun dañuy liggéey chaque jour ñun dañu toog deux wala trois mois duñ def ñu daf ñu bàyyi xel bàyyi xel boobu aussi bokk na ci li ñu oyofalal lu bëri grand théâtre aussi daf ñu ko permettre parce que grand théâtre bu doon dañuy ñëw fii budget bi ñu doon wax ñu dem ak ñoom ci budget boobu duñ ko mun def mais ñoom dañoo gis ne projet bi intéressant na ñoom ñu jël ko grand théâtre ñoom dañ leen ñu non seulement dañ leen jox espace bi ngeen def mais buy amaat déwén ñun ak yéen ñoo koy defandoo xam nga loolu rek dafa rafet donc loolu yëpp permettre na li tax ñu mun ko def à Dakar au lieu de bi waaw yomb na yombul xam nga problème Sénégal moom ñàkk xaalis mooy mooy indi problème c' était pas évident pas tout le budget mais quand on a été aidé même fi ñu accueillir gars au départ gars dañ ci comprendre rek am confiance ñun def ko et plus tard on a pu payer et c' était bien alhamdulilah ñu siy remercier toute l' qui a travaillé